nice bu ñu gisoon et vraiment sénégalais yëpp ah, yéene la ko ndax nit ku baax nga macha allah euh, ñu dem tuuti rek ñu gis harcèlement bu tal sa kaw wala sax nag ay rumeur ci sa divorce passe ma monsieur ma déglu ko mhm. d'accord xam <laughs> nga passe <laughs> <laughs> yee bëgg naa monsieur Samb ak a timide monsieur Samb mooy ñëw. bu ko fi timide timide loo bu ñëwee du wax ba jàmbur bi. <laughs> kon noppi naa. acca mu ngi noonu Nabou euh, sénégalais yëpp ñu ngi lay déglu tey à travers euh, Seneweb TV euh, nan nga dundee rumeur yi nga xam ne mu ngi nekk di tegu sa kaw jamono ji ah Zeyna Bamba. Mhm. maa ngi leen di nuyu ñëpp. di mhm. nuyu Eva. di nuyu sama turandoo sama ñaar turandoo ñoo ko nekk en tout cas. Mhm. <laughs> mais xam nga Sénégal dañuy nekk. donc rumeur moom loo xam ne. Mhm. Euh, lu yàgg la fi ah. Mhm. et puis kenn mënu ko kenn mënu ko bañ. man lu may wax mooy que maa sama jëkk am jëkkër amuñu benn problème donc nit ñi noo nekk di wax rek. Mhm. allo. ñëw na sax. monsieur Samb. noo def yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu wér. dalal sant borom Tuubaa. sallallahu alayhi wa sallam barki borom Tuubaa dalal ak jàmm biir Seneweb. waaw ah, merci beaucoup. d' accord jamono ji dañu gis ay ay rumeur yu euh, daw ci diggante sa diggante ak Nabou Diagne euh, d' autant que bi mu mariage bi amee yàggul ñu gis ko macha allah sénégalais yëpp kontaanoon euh, ci union bi nga xam ni tey am na ci seen diggante yow en tant que kilifa gi nan nga dundee loolu. ah mais man damay sant yàlla. non parce que. bu bu bu amuloon wax rek. du baax. ah kon jamono ji ñoo ngi tali wax ñun ñoo ngi tali def. Sénégal bu ñuy wax. da bàyyi ñu wax parce que ci wax wax lañu làmboo. ah nag yow nag yaay def de telle sorte kenn du la suba. te moom moom sans défaut sans faute macha allah. Mhm. yàlla ma yàlla bàyyi ko moom ci kanam ak kanam kanam bu ñu suulante suñu bopp. mais bu leen leeree muy seen jàmm. te mhm. foor na. ñu sëy bi xam nga loolu ne du <laughs> macha allah. Mhm. mu wax leen gën a dee maa yóbbu sama bopp ci sëriñ ne liggéey ma maag na ko jaar ñu ko. ah loolu eh, kaa la ba la. Eh. léegi nag ñi war a kaa nañu kaa seen kaa mais bii moom. bu sas bu sëy bi tasee sax maa koy jëli. Mhm. ndeysaan ndeysaan yàlla yàlla nañ ci yàlla musal. allahumma coow nag mënut a ñàkk. Mhm. waaw sama xarit la. sama mhm. gars yi dañuy xeex di raak. comme ñëpp. mais dañuy juboo. parce sëy bu nekk juboo moo ci dàq. I love macha allah mm. ah loolu Korda <laughs> bisu boobu mënoon naa ko am direct vidéo mais mais euh, mais ma yeggali euh, uh-huh. monsieur Sam balaa ngay dem euh, pour yow lan nga ñan nga uh-huh. jàpp ni ñoo nekk derrière ça dafa am ay personnes yu am acharnement personnel ci seen couple wala dafa am ay nit yoo xamante ni peut-être mën nañ nekk sa ex uh-huh. yoo xamante ni sëy bi neexu leen exactement waaw ku nekk Amérique nan la exem di nekkee Ndakaaru hmm. Hmm. maag na bu jaay depuis deux man man ciment la mm-hmm. benn yoon lay tooy. Mm-hmm. léegi nag nit ki moom Sénégal lañ nekk lu waay neex def. Mm-hmm. lu waay neex wax. lu waay neex jëf. man man du du lu waay wax rek baal naa ko balaa mu koy wax. ndeysaan. lu waay def rek baal naa ko balaa mu koo def. li ma waay yéene nag moo xam ay man yéene laa ñëpp laa yéene jàmm ak salaam. waaw ay sama ex ak ex àdduna moom ku gis lu baax bëgg ci. mais xale bu jigéen bi moo moo moo bàyyiwul dara. Mhm. kii moo jàpp fépp aawo ñaareel ñetteel ñeenteel ak jàpp. vaar am na de vaar am na de. man moom bu ma joxee permission rek lay am. déggoo mu ne ma kaa ma takkal la ñaareel ma ne ko kon bi day tas. dafa góore nag. macha allah ku góore la. te mm-hmm. nu xam ku wax lépp doon wax kat mais bon yàlla yàlla may ko gudd fan. wér yaram amiin may yaayam gudd fan ak wér. parce que mm-hmm. yaayam moom mooy mm-hmm. sama yaay. mère Khady Gueye Abdou Gueye euh, Ndeye Khady sama xarit la. ak taawam bu jigéen ambu. mu ma def ko sama yaay man. man dama am ñaari yaay ci kër gi. lu waay wax rek. bu dee leeree muy seen jàmm ne mm-hmm. tasul tey tasul suba tasul gannaaw suba moom rek lay neexee mu jël pause mais tas moom du ci am wax naa pause rek la mën a jël. Mm-hmm. <laughs> macha allah waaw. mu ngi jëlee pause bu paree man pause bi bu yàggee ma dem jëli ko. nga dem jëli ko pause moom du yàgg moom. benn benn fan doy na yow pause. non du neex ci yow. surtout ñun moom moom ci boppam. moom ci moom sama xarit la man bu ma xëyee gisuma ko damay damay jànn. xam ndeysaan yal nañu yàlla fal cat. waaw mhm. ah, sama gars la. macha allah mu ngi noonu te yem na fu ko yemloo. Mhm. moo ngi def li ko defloo. Mhm. moo ngi xam na lu mu xam wax ma lu ma xam wax ko kon neex mën nañoo xam luñ droit. doo nag di di di di di di histoire ñëpp mënul nekk. bàyyi leen ñoom ñu wax yow nga jëf. macha allah. c'est dommage nit ñi di wax ñooñu parce que le Sénégal est mal. est mal gouverné le Sénégal est mal formé. Mhm. nit ki lu lu waay neex wax. Mhm. te dara du ko ci fekk. Mhm. lu waay wax dara du ko ci fekk lu waaye def dara du ko ci fekk. mais saa ça ça suñu doom yi ñoo ci ñoo ciy fay quoi. ñoo ci amay ay yu métti. dëgg la. xam nga nit nit ki da gis nit bi dox sax nga am soxor iñaan iñaan ñi soxor ko liggéey ko def yu bon. mais àdduna yi du loolu. loo yéene rek moom ngay am boo yéene nit ki lu baax lu baax rek ngay am. mais boo yéene nit ki lu bon lu bon li du ko dal te yow dina la bon. Mm-hmm. te yow dina la dal. dëgg la. Mm-hmm. nañ defar ak jikko yi. Mm-hmm. waaw tooñul moom di jaay bagage am. jël ay marchandises di dem ak dellu ko di wax lu kenn xamul lu ñaaw. waaw man man góor laa. am na xam ne waruñu ko wax. nga xam ne tooñul kenn dikkul demul dikkul. bàyyi leen jàmbur amul amul amul man daal bu leen neexee ñu wax fii ba suba. du man maa takk da sa wax ku ko dégg te bàyyiwul leen ma xam ne du gor jàmm la. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. nabu da am question. suba la ñuy gën a aay. Mm-hmm. suba suba la ñuy gën a def moom li mu ko wax dafa dañ. danaa ko suba dinañ def. te buñ defee rek yow bàyyi leen ñuy def yow ngay jël lu baax la ñoom buñ defee lu bon yow jëlal lu baax. bu leen tontu bu leen taas bu leen histoire bu leen tontu sax. konoon tontu beneen coole de. man maa nag maa ngi jéegul bu fekkee dama am ku ma tooñ wala dara. <laughs> moom monsieur Samb maa ngi lay nuyu. waaw mhm. ah, maa ngi lay fay. borom anniversaire bu neex bi borom anniversaire surprise bu neex bi. <laughs> waaw dëgg de moo ko def de mu ngi noonu mu mel ni euh, seen problème wala mu mel ni euh, coow li depuis bi nga xamee ne nag daal di nga yëkkati euh, dot bu rëy boobu daal di ko jox sa jabar teral ko daal di ko ko sargale mhm. coow li ci la commencé ju ko parce que ñu bëri ñu ngi naan euh, kii liñ ko jox bari na euh, sëy du daal di yàgg euh, mu mel ni complication yi ñuy wax ak sëy ak célébrité mu ngi commencé bëgg a ñëw ci seen couple mais alhamdulilah yow ni nga tontuwee daf mel ni ci côté boobu pare nga ci depuis seen début mariage la coow li commencé depuis ca dot ba nan nga dundee loolu waaw mais man de man taalibe Sëñ Tuubaa la loo jox lu ne xeeb ko. Mm-hmm. te jigéen bu toog deux mille dix neuf di la xaar am na yoo xam ne mun ñu ko nettali mun ñu ko wax ci télé mm-hmm. moom xam na man xam naa. koo xam ne dafa toog xaar la. Mm-hmm. ngeen di histoire mu toog ndaw jaañ ñëpp xam nañ ko. benn ñëpp góor yëpp bëgg nañ ko. mu ne man la bëgg. kooku moom boo ko joxee milliard doyul. dëgg milliard ak i milliard te àdduna xaar leen ba ci kanam. yal na ko yàlla may ay fan yu gudd. allahumma amiin da ngeen xam ne du moromu waa Sénégal. Mhm. ndeysaan. neuf cent ba deux cent ñaata la ñaata dix millions ak ñoom une seule. Mhm. ñoom waxuñu la li ci ne sax. am na lu bari da ngeen ko maa leen di invité encore. <laughs> Mhm. dinaa leen invité fii beneen xew. boo xam ne Sénégal yi dinañ teg seen bët. incha allah ñun dara ki wax. dañu <laughs> allah. Ah, mu ngi noonu 10 million de iPhone 12 la ko daal di mayoon depuis loor nag mu mel ni ci la ay seeni détracteur détracteur du moins daal di yëngu ah, monsieur Samb sànq da nga wax lu am solo te ñu seetlu ko aussi te gëm naa ne loolu bokk na ah, ci li leen motiver waaye tamit bokk na ci li nga xam ne moom moo leen ñaax muy sa goro di maman Khady Gueye ñu koy nuy de passage depuis Amérique parce que gis nañu ci biirum jour mariage bi lim la seedal yow avant ngay wax ci moom moom moom wax na ci yow nee na doo goro ci kër gi doom nga waaye tamit bokk nga ci doom yi gën a sori ci xolam lu mel ni dafay mel ni tey euh, tax na tey même bu la doomam tooñoon sax ak li nga xam ne rumeur yi nga xam ne euh, moom la sénégalais yi dal di wax yow dangay ngay daal di bës euh, gumba taxlu rek daal di téye. non loolu moom lu am la te xam nga balaa yaayam di wax maanaam ko jàppee sama rakk. Mhm. sama xarit. Mhm. te rakk moom ak xarit. mu neex da ngay jàpp mu naqari da ngay jàpp. Mm-hmm. Mm-hmm. te gor rek mu man man joolaa laa làkkat laa. Mm-hmm. kenn du yaayam lu mujj. yaayam li mujj. seede yàlla. du ko mus du mus a gis lu ñaaw ci man. Nabou Diagne bu ma saaga woon sax te te du saaga. xamul sax saaga. bu ma saaga woon sax baal naa ko. parce que góor góor rek ngay doon te sama doole xajul ci moom leen laa ko jàngal ko àddina mhm. maa ngi koy jàngal nànk nànk macha allah moom tam moom may jàngal nànk nànk mhm. dina juum comme couple yëpp dinañ merewoo mhm. mais yàlla def na ni yaayam góor la garmi la ku baax la magam bu jigéen muy ambu góor la garmi la ku baax Cheikh magam bu góor góor la garmi la baax Daba Niass. image mhm. anniversaire Gorla Dar mhm. Alima. Mhm. xam ne moo ànd ak euh, Barthélemy Diaz. ànd ak moom conseil ba Gorla Garmi la te xoolal sëy bu ne di am ay difficulté. ndeysaan du ma ne amul ni de kooku bu mu ko waxee damay fen mais xoolal ñu ngi koy surmonter yu neex. sëy balaa moo neex histoire am ndax jubóo déggoo ma de. am sëy boo histoire jubóo du neex. ana ana Nabou Nabou na ñëw man ñu laaj ko quelques questions je pense que Eva am na ay questions pour euh, pour moom monsieur Samb. waaw man maa ngi sangu nag. Euh, kontaan nañu je vous remercie. bu baax jërëjëf. Euh, Nabou on pour pour bu ci njëkk mooy. Ah, est-ce que depuis est-ce que depuis rumeur yi da nekk di jot ay menaces ci say téléphone ñu lay menacer de mort wala sax nag di la tëkk pour def la yenn sa diggante ak sa borom kër. waaw bien sûr loolu mënul ñàkk. c'est hmm. normal. est-ce que def nga appel. Hmm. non defuma plainte non defuma. Mhm. parce que ko pour lan moo nekk nature nature menace yooyu. je sais dañuy wax ah, xam nga menace la mhm. biñ la woowee lan lañ la menacé en fait. exactement exactement menace yi. non mais loolu jaruma ma koy wax waaye. Mhm. amul grawul. kon ay ay ay ay ay ma wax. donc mais jot naa ay ay menace am naa sama benn copine tamit jot nag ko même d' accord mm-hmm. euh, euh, est-ce que bi nga bi bi menace yi amee ci appel yi te appel téléphonique yi numéro yooyu identifié la wala ay numéro privé non mais numéro normal la nag après rappelé waat na mm-hmm. mais jotuma ko d' accord d' man li ma li ma lay laajaat rek mooy que ni biñ la wooyee loolu mm-hmm. pour menace yi appel yooyu nga xam ne woo nañ la ko pour menacer exactement lan lañ la wax dañ la menacer ci sa personne wala dañ la menacer ci sa diggante ak boroom kër ci ban côté lañ doon wax. waaw dañ ma menacer sama sama diggante ak sama jëkkër. d'accord. Mhm. boo ko bàyyiwul dinañ dinañ def nangam wala dafa am ay ay preuve yu ñu la yoreel wala dafa am lañ la teel. non non pas preuve bokkul preuve. sérieusement mhm. parce que li mu wax dama yow li ngay wax sama jëkkër benn sama biir Euh, li mu doon wax du dëgg. Mhm. parce que day dox ba fajar chaque fois mu ne ma wax ne xam nga loolu ay détails la. d'accord mhm. sama jëkkër moo ngi nii waxaatu ma ko dara sax. Mhm. parce xam naa ne loolu c'est pas vrai. vingt mm. donc daf leen neex donc ci gàttal daf leen neex noonu rek ñuy wuti yenn numéro di la wane la sa jëkkër daf leen neex ñu bëgg yàq et tout. xam nga ci waa ñu bëgg yàq xam naa waruñu si jublu moo tax ñuy def xam nga des fois nga nga jub pour yàq. wax benn mot boo xam ne peut-être sax mën na tombé bu fekkee sama jëkkër dox takk guddi la sax. nga gëm ko xam nga. Mm-hmm. waaw dinaa ko gëm mais koo xam ne vingt heures su wàccee mu ngi si biir kër gi génnaatul ba le lendemain. Mm-hmm. des la sax du dem bureau lu mën a liggéey bureau kii la koy defee. ndeysaan. waaw mooy noonu. Euh, Nabou euh, ginnaaw bu ñu mhm. nuyootee sànq ba pare donc man question bi ma am. Eva. Euh, mhm. c'est vrai que sa jëkkër def na ay témoignages ci yow que depuis deux mille dix neuf. Mhm. yéen a ngi yéen ngi nekk en couple ba yàlla def tey mu takk la. Euh, olof daf naan loo gis lu nekk am na lu ko waral. donc lan moo nekk véritable problème bi tey. ba ñu war la mën a oo di la menacer ak ñan nga jàpp ne peut-être ñoo nekk ci ginnaaw menaces yooyu ndax sa xel dem na ci ñenn ñoo xam ne yaakaar nga ne vraiment. ñoom ñoo nekk ci menaces yooyu. non sérieusement nag mënuma jàpp kenn parce que bëgguma tooñ comprendre nga mënuma jàpp kenn parce que bëgguma tooñ mën na nekk sax koo xam ne xalaatuma ko wala mu nekk koo xam ne sax maa ngi koy xalaat tu vois donc moo tax mënuma jàpp kenn li ma mën a jàpp mooy man am na loo xam ne du ma ko wuyu ay menaces yooyu yëpp duma ko wuyu parce que aw ma jot du nekk di saagante wala di def loo xam ne mosuma ko def dama yegg si ba fi di ko def comprendre nga. ba ma nee hmm. Nabou Diagne ba tey am na détails yoo xam ne du ma si dugg. Hmm. comme sama jëkkër lu mu leen wax ne couple moom mënul ñàkk ay problème et tout mais hmm. mosuñu divorcé. encore une fois. amuñu benn problème. man maay def sa sama caprice mosuma def dara man maay jékki-jékki def samay caprice def samay affaire. comme Nabou yëpp dañuy jékki dañuy jékki di di cokkaasante di xuloo ak di mer. <laughs> mais moom moom mosuma <laughs> uh-huh. lépp man la uh-huh. def ay affaire xam nga affaire yooyu uh-huh, jigéen mais mais Nabou bi menaces yooyu amee est-ce que tey jii dem nga si yoon parce que boo demee ba toll ci étape boo xam ne euh, yaa ngi sëy ak sa jëkkër amu leen problème ngay jot à chaque fois ay menaces ak ay messages yoo xam ne Euh, ce sont des personnes anonymes comme ni nga ko waxee est-ce que tey jii dem nga ci yoon pour peut-être porter plainte non non non loolu ñàkk Eva Mm-hmm. garaawul loolu mënul ñàkk mm-hmm. ay menaces nii si sëy non mais loolu loolu de fii lañ ko fekk mm-hmm. da ngay gis benn xale bu jigéen bu ñu nekk sa jëkkër xam na ko bu wala saaga la wax lu nekk man sama jëkkër depuis ba ñu marié ba tey ba ñu amee je pense deux mois de mariage daa commencé ay message ànd nañu man ak moom génn xëy jigéen woo ma ni ma sa jëkkër démb ñoo nekkoon def naa ko li def naa ko li ma xam ne waxu dëgg parce que maa ñoo nekkoon démb kon dafa mel ni yow ci ci mariage bi nga am ak dot bi nga am lañ la envié du mm-hmm. maa ngi dégg ay genre message mais ma ko tontu mm-hmm. parce que amul sens yoo xam ne dafay yàq sama ménage du ma mm-hmm. xam nga mooy loolu d'accord jaru tontu d'accord mu ngi noonu xam naa duñ leen teelu yàgg comme da ngeen di door a jóge sport ana tey lan ngay dénk euh, képp ku lay seetaan à travers parce que li euh, témoignage bi sa boroom kër def ak li nga wax ni euh, ku leen dégg xam ne macha allah ay xale yi ngeen bu bëgg sëy toog ci seen sëy gérer seen sëy mais dafa mel ni sénégalais yi léegi ah. bàyyi ñu kenn mu nekk ci seen jàmm ana ban message ngay porter selon tey ñi nga xam ni euh, ñoo nekk di def lii tey su fekkoon am nga message boo leen di wax tey à travers cette ah, <laughs> non ma leen di wax daal mooy xolal mhm. déedul ne nañ message yi ba suba nañ woote fii ba suba. Mhm. sëy bi li ko takk tas ko. dañuy solo seen bokk rek. Mhm. c'est tout. loolu laa am lu ma leen di wax dañuy solo seen bopp. dañu mhm. menacé def lépp mais xam fan la neexee. face to face. ñu ñëw jàkkaarloog ak man. mais le reste moom vraiment. macha allah am na solo uh, maa ngi sama yoon maa ngi sama yoon di mhm. bu ñëpp xam macha allah nekk sœur ci Wally Ballago Seck euh, ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi naam waxtu bi euh, dab nañu fu mu toll nii euh, nga am éclaircissement ah. par rapport ak rumeur yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci yow ak sa diggante ak borom kër en tout cas ñu ngi lay féliciter di la ñaanal jàmm ak salaam yow ak sa boroom kër yàlla defal leen ay seex du yàgg oh. dara ñu ñëw daal di di ngénte ji ngénte bu neex incha allah ñu ngi lay remercier bu baax def ko njënte joola <laughs> mu nekk njënte joola ak mu ngi noonu mm-hmm. merci beaucoup Nabou Diagne la ñu amoon tey euh, par appel téléphonique ngir bu leeral ci rumeur boobu nga xam ne euh, ñu ngi koy teg c'est vrai triste vraiment triste man euh, xawmatuma sax lu may wax parce que man bu fekkee sax nit ñi Euh, dañuy bëggante wala ne si jàmm nit ñi taxaw ne duñ ne si jàmm vraiment man je je je ne sais ci ban dëkk la ñu nekk lii hmm. et li ñu wax ni ku dawul sa yaram man pour man doo gor nañ leen bàyyi ñu sëy ñu nekk ci hmm, seen jàmm ñoom ñoo bëggante depuis 2009 ñu nekk ba yàlla tey dogal 2019 ba tey ñu yàlla dogal ñu sëy xëy na moment bi la yàlla dogal ñu sëy te jigéen peut-être ñu koy envier wala ñu koy soxare yàlla mën na leen may beneen boroom kër bu leen teral et pour man jigéen bu nekk mérité nañu teral la àdduna ak li si biir mhm. tey lu ko nabu Diagne lu ko jëkkëram def da koo mérité wala war na ko am plus wala mu jox ko plus parce que ñu bari nag man ci li ma xam mhm. ñu ko bëggoon bëgg ko takk donc bu yàlla dogalee mu sey kii donc lu am solo la euh, waxtu bi daal nañuy dab Eva yéen a ngi fàttaliku mbër mi ñu fi tàggee woon parcelle mhm. xëy rek un bon seen waa kër di daanu gàngiri parce que dañu xëy